mbokk yi nu maasa déglu kàddu gi jóge na jóge na ci sëriñ Hamdi Fall Mudu Mbenda xalif général de Baye Fall wàcc ci jëwrinam ju tedd ji di sëriñ seex Fall ñu gën koo xam ci sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu jox ko rakkam ju tedd ji di baatam di porte-parole muy sëriñ Saliou Fall Moustapha ñu maase déglu mu wax ni bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee ñu ngi nuyu bokk yi bokki murit yépp yi fi teew di leen jottali nuyoob sëriñ bi muy jëwrini sëriñ bi di sunu sëriñ di sëriñ Seex Faal Njaaye Mbeng mu jottali ay kàddu yu bàyyi koo ci sëriñam li waral tànkam yi tey nee na lenn rekk la moom sëriñ bi dafay nekkal maam Cheikh Ibra kon fu daray Cheikh Ibra lu lu ne nekk fu ne moom sëriñ Hamdi war na koo nemmiku ba xam foofee alal jafane nu mu fa nekke ba tax na sëriñ baabakar Mbow mii nag xay bi mu gisatul sëriñ Seex Jëmb Faal mi mu dëkkan ay loxoom ngir jëmmi maam Seex Ibra ne da ko sosi fii ci sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda ne kon sëriñ di day xool ci liggéeyam bii xay Cheikh Ibra Fall la ko fi defal ne loolu mooy tànki sëriñ di Fall mii yal na yàgg ne nu jéggalu nag di wax tuuti ci sëriñ Babacar Mbaw ndax bi ko sëriñ Cheikh jëmb joxe liggéey bi ba tey jii sëñ baabakar musta soppiku da cee nekk rek nee na ba fee nga xam ni mooy ndéem xëy daananu ànd ak sëriñ bi di ko fa fekk ne boo ñëwee fii tey dangay defe ni dañoo sempi la newen ndéem ko fii ci gi gis Bàmba ca loola lépp la mu ci jublu mooy bëgg a wéyal ndigal la rekk ba mu mel ni sëriñ bi bëgg ne ginnaaw bu loolu wee bi fi sëriñ Babacar ñëwee itam nee na tund wi nga xam ni moo di Mbàkke Kajoor nee doy nañ ci moom seere ndax daa jëflanteeg ñoom loo xam ni nee na wax dëgg yàlla nee na weddi gis bokku ca ne ànd nañu feek sëriñ seex jëmb nee na monsieur le maire si di sëñ Mamor si la ànd ak waa dëkk bi ñëw di jébbal ci sëriñ bi la nga xam ni seenub liggéey la te mu jóge ci xam-xamu Serigne Babacar waxal rek mu gën a jekku ndigal li ne dañu fee ñëw ànd ak sëñ Cheikh Jëmb Fall ne mu ak si di nuyoo ne mu wommat ñaari ngelamu ngelamu mooy fas yu rafet ne mu ñëw nuyoo ko sëriñ seex Fall Jëmb ne na am loola day li ko sëriñ bi di defloo soo amuloon pas-pas mën naa jaay naari góori fas yooye ngélambu ya dugal ko ci liggéey bi te ne ko it mu yàlla kat ndax dañ koy liggéeyloo ndax Seex Ibra la ko yët ci leeg Seex Ibra liggéey la ko def wax nga dëgg de wax nga nu jóge fi sëriñ bi jàll ca biir nu ànd ak moom fekk ko fa ne sëñ bi sëñ Babacar wàññi ñaari million sëñ Cheikh jëmb teg ci loxol sëñ Saliou mi ñaari million ni ma ne ko joxal ma baabakar ñaari million yi na ma ko defal ci liggéeyub Cheikh Ibra Fall bii sëñ Babacar gàndu nu wiitoo ak moom nag ni ko nag sëriñ bi daa am wàll ci liggéeyal Cheikh Ibra daa nekk jëwrinam waaye da koo war a liggéeyal kon liir nang ko ko ci defal ne loolu lépp daa wone moom sëñ Babacar ni li ko sëñ bi defloo bëggul dërëmub sëriñ bi dem ci na bàyyi rek mu jiital sëriñ bi ba lépp sotti tarkal ne kon su sëriñ Hamdi Fall Cheikh Ibra Fall jóge ñëw di ko seet si ah ne loolu lu war a am la ndax moom mii kat moo fi toog nag toogaayub Seex Ibra ngeen jàkkaar lool nag de ci lu kenn wérantewul sëriñ bi kon sa rakk yépp ak taalibe yi ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga fi yàgg te mu ànd ak wér ak sa jëwren ji di sëriñ Cheikh Fall Moustapha sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng xay loo joxañ rek taxaw na ca sëriñ bi na nga ñaanalal sëriñ seex mi ak rakkam yi ak doomam yi xay lu nu nekk ña nga ca sunu kanam nanguwuñu nu def leen lu nuy bëgg a def ñu taxaw ni ñoom ñoo koy def ndax bàyyi de loolu waru leen nun doom yii nun la war nun taalibe yi nun la war nee ta kat rekk a ci yem liggéeyal yàlla rekk la amul ku warta liggéeyal yàlla amul ne waaye nag am ci nun yërmande rekk moo tax ñuy doxale noonu jëf ne kon sëriñ Saaliwu ne ñi ngi sant sëriñ bi di sant donga yi ndax teewaay bi lépp rafet na ne ban fi ñëwee ànd ak sëñ Cheikh it ne nii rekk la meloon ne mbooloo mépp dikk nañu te Cheikh Ibra Fall rekk a tax ñu ñëw ne kon sëriñ bi sëñ Babacar mii nang ko ñaanal Fall ba mu jébbal la caabi yi ci ni nga ko bëggee nee na ku dem ndéem dey ñëw fii ne di nga xam ni li ñu koy def loo lu ko ñor la day ndax bawul ndéem dara xanaa dëkkuwaaye rek waaye lépp a ngi fii ndax pas-pas bi ak yéene ji ak bëgg gi ak nangu gi lépp la ëndaale kon sëriñ bi na ñaanal sëriñ Babacar mbaw ne kàddu yi nag sëñ bi da ko noon naa ko ko jottaleel rekk ba mbooloo mi xam ni teewaayub sëriñ Hamdi ay tànkam fii ci Mbàkke Kajoor seet si dongoom bii di sëñ baabakar Mbow alalam ji mu ko jox mu ne fi sañ na koo xool ne loolu rek la ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ne wax ji nag lu ci dëng rek ci moom mii la waaye li sëriñ bi wax moom dara dëngu ci jërë ngeen jëf bàyyi ma dikkee ñaan gi nga sakku ci sëriñ bi muy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall mi toog nga sakk ko ci suñu jàmbaar ji sëriñ Babacar loolu dong mooy lu ñor xam nga lu ko sabab mooy jébbaleen caabi laa bëgg a wax seconde mooy kon xanaa li may wax jeex na dane siquma ak sëriñ bi liggéey ba noppi mel ni entrepreneur nga ñoon ab marché di jëbale caabi déedéet xanaa kay dees na teg caabi samay loxo ma jox ko sëriñ bii mu ni kàcc cib ab liggéeyam waaye may saytu liggéey bi nag ban ni ma fii ngay noppaloo samay sët di saytu bañ leen ni fii ngay di noppaloo kon éternel lay bëgg a wax kon kii mooy jàmbaar muy dëgg dëgg dëgg ab murit kii moo jar a xentu kii moo jar a roy Fall Ndiaga loo ko ñaanal sa murit bii barki rasulullahi daraja yi Seex Ibrahima Fall sa jëmm ji fii nu joxoñ fii nu joxoñ Fall Ndiaga murit yi fi ne ñëpp seen i juróom ak seen i fukk ak seeni i dërëm ak seen i tànk képp moo jagal lii fii mbaar mii mbaar mi ku ne tabbi na fi wax say wax ba ni xaaw di nga say dig dem bii gisatuñ la waxatoo waaye sëriñ bi ngar daaju rek mel melokaanam wi mbaw nga la loo yokk doyul loo dund doyul te billaahi di nga jëbale dara jëy Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sëñ Bay kon mbokk yi dañoo wax ne sëriñ baabakar Mbaw ak kàddoomi cantam moom la sëñ Cheikh Ngounda wax ni ko na ko jottali sëriñ bi ak njabootug Cheikh Ibra gi mu àndal gépp ci liggéey bii ñu la jox bu noppee ñu jox sëñ daam mu jël te jàll kàddu yi sëriñ bi ñu ñaan Babacar wax ni mi ngi nuyu sëriñ bi ak njaboot gi mu àndal ci liggéey bii dégloo dégloo waaye mi ngi jiital ak ñaan ci sëriñ Cheikh Fall jëmb mi nga xam ni moo ko woon liggéey bii sëñ Touba sëñ Sidi Muxtaar jox ko sëñ Cheikh jëmb wax ko ni ko dama bëgg kër maam Cheikh Ibra ci Mbàkke Kajoor ndax kër maam Cheikh Ibra ci Mbàkke Kajoor daa jekke ni bakkan jekke ci ab xar kanam noonu la ko sëñ Sidi Muxtaar waxe woon sëñ Cheikh jëmb ak barab bii nga xam ni fi la maam Cheikh Ibra Fall gisante wan ak Sëriñ Touba sëñ ni Muxtaar ni daa bëgg mu mel ni barab bee Cheikh Ibra Fall tëdd dafa noppaloo muy àjjana ñu nuroo benn jitaay mooy liggéey bee sëñ bi jëkka tàbbi ba wax ne dafay wàcc mooy bisu pas-pas ba bañ ko waxee sëriñ Cheikh jëmb ni njabootug maam Cheikh Ibra Fall gi toll baabak sëñ Babacar Mbaw sëñ bi xool ko gis koy gisan ay liggéeyam ca ba mu daan jaar ca sëñ Moodu Fallu Faal ba mu daan ko jëli sax ndéem mu di ko fa waajale mu daal di woo sëñ baabakar mii fob liggéey boobu teg ko ci loxoom ne ko njabootuk Cheikh Ibra Fall gépp maay seen jëwrin saytul ma liggéey bii wax dëgg yàlla ca yooye jamono bari na ay xol yu jàq yu tiit ndax lan mooy xamuñu sëñ Babacar ban capacité lay yor ci ci financement ba mën a liggéey ñeenti barab yi muy barab siyaar bi kër maam Cheikh Rafal bi daaray Mamor Anta Sali ak ak tool ya muy ñeenti barab boo xoolee ca dessin bi moom la ñu sosoon ndax booba ñu bari ci mbooloo mi dañ ko daan dégg waaye xamuñu woon sëñ Babacar mii ku dul Cheikh Ibra Fall njabootam muy sëñ Cheikh jëmb mi ko jox ak njabootu Cheikh Ibra gii ànd ak moom di rakkam ñenn ñi jaaxle naa Babacar fu muy jële nii waaye booba pas-pasu xolam ba dégg nga ko moo ko tobbal bopp dégg ko sëñ Assane nee na biñ ko joxee liggéey bi kenn tobbilu ko aw sas ne ko nii lay mel mbaa naa lay mel moom moo seet ci xalaatu boppam nit nii lay mel nii laa koy defee loolu la sëñ Assane mi wax nag dem ko mi ngi ko jot bi mu daal di tàmbali nag liggéeyam boobee pas-pasam ba ak bëggam ga ak yéeneem ja lii sëñ am di wax léegi moom la def mu daal di dem ci dëkku cosaanam mbandin déem galerie ba mu fa njëkk a am maam sàmba maamam la ko tuddee waaye da koo gental ndax suusam maamam a ko mooman daal di gàddaay jaay ay këram xam naa ay këram yu ma daa ànd ak moom yoo xam ne fépp la ko am mu jaay ko jël nag ak njaboot tamit ay doomam yu góor ak yu jigéen ak soxnaam mooy yamu amin ca ba muy nekk Europe di ko liggéey yépp exploité na ko andi ko fii ci Cheikh Ibra Fall moo tax boo duggee ci Mbàkke Kajoor di nga fa daje ko chinois ab Angleterre ab français ab espagnol ab ab chinois ñépp nga fi dajeel ndax ñooñu ñépp ba muy am lanteek ñoom waxul woon ak ñoom ci procès sax booba joxaguñu ko liggéey bii jàmbar jaa ngi nii lépp mu utilisé ko fii loolu nag nee na li mu ci sàkku mooy ngërëmal sëñ Touba rekk ànd ko njaboot googa ba fekki Serigne Cheikh Jëmb faal mag ko joxal ci liggéeyub Cheikh Ibrahima nee na moom day sant ñëw gii fi Serigne bi ñëwit nee na ak cant rek la moom daa mel ni nee na mi ngi ko jàppe ni ku ne ci ab tool di bay yor-yor ba sàqi borom tool ba dikk ni la jaajëf wàcculoo wu la ngir nga añ. dalaa soññi nee na ñëwug sëñ bii ab soññee la ci moom ak njabootam gi mu àndal ak taaliba yi mu àndal ak murit yi mu ko bokkal yépp bala moo dégg jaajëf daal nee na day fekk sëriñ Cheikh Fall jëmm mag joxoon loolu lay sàkkoo jaajëf waaye lii nee na ab soññee la ci moom na ko ñépp jàpp ab ndax Babacar neen loolu laa ko def ab soññee la ci man mi sant nag bu baax waaye nee na kenn ku ne da am jëwrin sëriñ Cheikh Fall ngunda mii nee na mooy sama jëwrin ci liggéeyub Cheikh Ibra bii ndax benn waxtu wu ne mi nga may soññ di ma waxal loo xam ni saab xol day gën a bees sama yaakaar di gën a dolli ko waaye nee yemu ca waxtu wu ne day dox guddi takk ab lim bu baree baree bari jox ma ko maa moom ak yàlla rek mun ma defal ma ko ci liggéeyub Cheikh Ibra bii man dama laa dama laa naw biig rek wax naa ko ne ko sëñ Cheikh Fall Ngunda bëggu la dalaa naw naw ak bëgg bokkul mën ngaa bëgg ku bon yàlla da koy nattoob jaam waaye naw nit nag mooy muy def ci Cheikh Ibra Fall loo xam ni yow ya ngaa bëgg a def lu mel nii mu di la ko defal sëñ Cheikh Fall Ngundam mii noonu la nawe Babacar mii moo tax mu taxaw moom di ko soññ di ko ci dimbali ba Babacar ni mooy sama jëwrin lu ma man ginnaaw yàlla moom mii bokk na ci ndax ni may soññee te loolu it wa ma sayidna illa bi ma alim na sëñ Cheikh Ngunda amul benn jitaay bu muy wax ca boo waxul murit yéen ni leen nan xool ci sëñ Babacar Mbaw doonul Cheikh ak Cheikh ci baayam doonul ak Cheikh ci ndeyam doonu ko ci magam moom moo jëkke ak Cheikh ci këru mbaween askanu mbaween bi ba ñépp topp ko mu am ay takk der waaw kay waaw ñu maase déglu sëñ Cheikh Ngunda waaye xel ci gan gi fi ñëw bii gan gi fi ñëw te tur wi ñu jox ko sëriñ bi mu tudde ko boppam muy ganuk sëriñ seexu seexu naa mbaw te waajuram di soxna faati ah, bokki taalibe yi may sëriñ bi nee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ Cheikh Fall mii toog di doomi maam Saaliwu Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ñu gën koo miin ci sëñ Ngunda Fall nee na mi ngi nuyoo te jiital ci nuyoo bi sangam bii toog di ab sëriñam di magam di léppam nee na nag di ca teg kilifaam gi toog di sëñ Cheikh Fall mu Cheikh Mamadou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng di jëwriñi sëriñ Mamadou Moustapha Fall mii di maam Cheikh Ibrahima Fall nee da ca teg nag sëñ Saaliw mii nga xam te ni magama ak mboolem nag rakkam yi mu fi nekkal te ñu bokk ak Cheikh Ibra di nuyoo itam képp koo xamante ni yaa ngi koy dégg fa nga nekk te sax jot mayule woon ñëw fi ngay magam walla ngay rakkam wala ngay ab taalibe wala nga def Cheikh wala ngay doomam sëñ fa Fall Ngonda nee na nuyoo boobu matali na ci ñëpp nee na kon nag nee na asalaamualeykum wa rahmatullah nee nag li may wax ci digganteem ak sëñ Babacar Mbow lay wax nee na sëñ Babacar day naw na ko waaye ñee na ko ndax fii nga xam te ni fi la yooni murit soqi koo te sëñ Cheikh jëmb bi ma koy jox ay rakkam a ngi fi ay seex a ngi fi yu seen bàyyi toppal Cheikh Ibra ak ñu seen maam toppal Cheikh Ibra mu yéene ko jox ko ko te Cheikh Ibrahima Fall bu nu sukkee jébbalu fii am na ñu fi fekkan waaye ni ko may la am nee na la ko may lam am mooy pos-posam mooy pos-posam ak jaayante nag yomb na waaye soo jaayante ba noppi jaayante ga na la jaral nga jóg engagé wu ca ba am la ngay am Cheikh Ibrahima Fall dafa jaayanteen foofa yaa ci waxin mu la mel na neen bu mu ne bu yaa ci waxin wala mu mel na neen du am li mu am te ba muy jaayante ak Serigne Touba génn jëmmam la woon jóg nag liggéey Serigne Touba ba nu ñëpp nu di ja xiiwlu bisit di sët di doom di kaneen ba ci man nee na kon ki nga xamante ni fii la ko defe woon ku ñu jox liggéey bu toll noonu man duma ni dama laa naw rek dama lay ñee laay wax ndax fii la yoonu murid sosoo waaye sëriñ Babacar dafa am ku ma wax ni ma muy moo faal ca kees dafa musa ñu suñ Saaliw Mbàkke ne ko la nga nekkan ba am lii bu ko bàyyeeti dig na la ne loolu day nee na may sëñ Saaliw dafa nuru aw taasu waaye doo taasu nag ne sëñ Saaliw ne ko loolu day maye na ko wax ko ne ne ko li la may lii samaam ñaati taalibe la sa baay ñaati njébbalam kenn amu ko ci te yaa ngi suñ njébbal yor say daayira la la ko may nag mooy dara kon li la sëñ bi wax sëriñ Saliou Fall mu baax wax léegi ci ndigul sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng sunu sang boobee joxoon muy sëñ Cheikh Fall jëm dalaa yéene de nit ki nag soo ko yéenee bëgg ko dimbali na ko xam jaay nga sa kër dégg naa sax fee ca ndéem toj nañu fa sa kër ay yoon yoon jël say bagaas waaye siiwul dangaa xam ni ka la ko joxoon moo la yebal fii te loole nga ñàkk foofee di ko amaat fii li ci des dañoo wax ni xew-xew bu ne boo fa demee seetal la waral xew-xew ba bul ni ñam yi bari na bul ni mbooloo yi bari na bul ni waxtaan wi neex na seet leen la ci rafaan nekkan ba am li mu am ba nu daje fii tey mooy dara nu fas yéene caaru yi Cheikh Ibrahima Fall liggéey Sëriñ Tuubaa moo ko may li mu am kon nanu xam loolu roy ca bi mu ñëw Sëriñ Tuubaa wax nañu ni ñaata la fekkan nee am na ñu nii ñeent fukk benn de nee léegi bi muy jébbalu am mbooloo la fekkan te defaluñ leen lii ñaar fukki fan koor gi ñoo koo laaj ku gën a tuuti ci yoonu murit kañ la mën na ñaar fukki fan koor gi foo dem ci àdduna ñu ngi koy màggal te fii la amee nag. kon fii mu amee woon ku fi ñëw war ngaa roy ci loolu loolee nag du dimbali bi yaafus du dimbali itam ku nanguwut a ñàkk dégg naa ñuy wax yi naan jëf la fi sama raw góor ñi dama leen koy wax ni yéen ko wax jëf jooje nanu ci nekk te bàyyi tappale yi li am solo mooy mbir boo ca bokkee fexeel ba am ci ciru bopp Babacar am na ciru boppam ku bokk ci Cheikh ba Babacar war na law yoon am na ciru bopp te mën na maa waat ni ku sukk jébbalu ci moom am nga sëriñ ndax Cheikh Ibra ngi ci moom waxantuwuma man am nay ngër neexaluma kenn ñaar doom Sëriñ Tuubaa ne man liggéeyin ba am seen ngërëm te sëñ Saliou mi tey di sama kilifa sëñ ci jëm yónni na ko ci man ak suñu asan ay ngërëm ah kay ne ne sëñ Saliou ne dëgg la ne ah ne li nga nekk mbaam lii bu ko bàyyeet nekk ci xew-xew bu ne boo ca demee seetal damay wax ne ku dem Poroxaan bul seet ne rangub teen bi gudd na bul seet ne barab bi xat na xootal ka jaral nit ñi ba ñuy def loolee la mu nekk nga roy ca loola Poroxaan Sëriñ Mamar Anta Sali mabba joxu ko fa yóbbu waaye kenn du ne mabba borom Poroxaan soxna Jaara borom Poroxaan lañu wax te cosaanu Poroxaan ana Mamar Anta Sali mu nga déqale kon jëfa am solo nanu jëf te bàyyi wax ji nanu jëf te bàyyi wax ji tey jéeneente ànd doon benn ay nit bu ñu booliwul seen bopp dañuy ref bu ñu booliwul seen bopp dañuy rafte ànd bi te nun ni ñi aw fa nee loolu dëgg ne fën fu mu nekk Cheikh Ibra ko fi nekk Cheikh Ibra nanu xool fii jaayanteem googu Sëriñ Tuubaa wax ne ba mu jógee di jaayante haasa hawaanu lil saafi lil maram wa waj u rabbi xarala bi bilan siraam daal di wax ni lii mooy njaay biinu soppiku sama ci net sama soppiku mooy lil maraam jëma ci càkkutéef ñu ne ko yéen càkkutéef mun liwaj urab bi sama jëmmi borom bi xarala bi mooy mooy sama ximimtéef bilan siraam du ma ci dellu ginnaaw ci ba am li mu am rek kon nañ xool loolu Cheikh Fall ba mu jaayante fi looloo ko te damay wax man ñaari doomi Sëriñ yi ma jaar kenn ku ci ne daana nekk guddeeg bëccëg lii may wax diggu leen ko Sëriñ Murtala Mbàkke daana fanaan mu cim néeg barkeb Seex Ibra muy jaamu yàlla ma dëjë tig sama bët sëñ Abdu borom dër bi noonu waaye ñoom nekkuñu fi na Sëriñ Tuubaa baay kenn ku ci ne la baay dañ caa nekk ba am sa cërub bopp baax na fa jërëjëf doomi sëñ Tuubaa koo ji dem ci ñoom am na cërub boppam boo xamante ni moo ko sàkkul boppam dëgg la ah kay dëgg la ah ah, te itam bokkut ak cër yi ñu jëri ci sëñ Tuubaa mbir boo ca bokkee bokkoo ñëpp fexeel ba am sa cërub bopp mooy li am solo nanu bàyyi tappale yi sëñ Babacar si kër yi nga jaay da ngaa joxe sa bopp nit nag doon jox naa sa bopp ànd ak àllaxira la mu wax bu dëggu ci moom moomatul lenn ci boppam li nga am Cheikh moom kon bu ko Cheikh Ibra soxla jox ko ko su fekkee defu la nga wax dëgguwul ci yow keneen tam noonu maam Cheikh Ibra Fall dégg na daana wax boo ñëwee ni ko jox naa sama bopp àddina àllaaxira loo ma sant ma def loo ma tere ma bàyyi mu ni bu ci boole loolu de buñ la santee defoo njibal ga day tebbi ko buñ la teree bàyyiwoo njibal ga day tebbi ko ndax yaa ko jaayante te man manub doomu aadama dafa soriwul tëttali ga yomb kon li nu sëñ bi wax nan ko def wax na ko démb sëriñ benn man sëriñ benn raw sëriñ benn ëppale mu sëriñ benn gën ki raw la ëppale la gën la balay laaj sa alal di ko booleeg alalam dalaa bëgg a dimbali jërëgéen jëf jërëjëf sëñ bi tey mi ngi toog ci ko ñun ñëpp toog ci suuf kon muunu gën te wax nañu ni Cheikh Ibrahima Fall ba ba ma toog ci boo boo toogee ci lan bi juróom-ñetti fan soo mënul mu mënal la soo amul mu amal la soo xamul mu xamal la kon lépp a ngi ci moom jërëjëf Fall jërëjëf Fall mhm. kon nee na nan góorgóorlu te te fonk suñu jaamu yàlla te xam ñi nuy loo mbooloo bu toogee ngay waxloo koo xam ni na na dox lu ñëpp mën a jàpp ah sëñ Baara Mbodj ngi maa ngi fi waaye gone goo xam ne xamul dara bay wax ñëpp naan a bàyyi détta wax loo détta waxal ne xamul li nga def nañ fi bàyyi li fi mag ñi bawan dégg naa nag kuy wax ni nan yéenante lu baax yéenim néeg la borooma tee fanaan yonent bi sallallahu wax ci addis ni laa yoomin ahadukum atta ba li aqi maa yuhiba li nafsi xen ci yéen li mu bëgg du ko mën a am te du càggante ni li mu bëggal boppam da ko bëggal bokki jullitam man de koy wax loolu te cet ma ci te cet ma ca man nan jox suñu kilifa tey bàyyi toog ngay wax leen du biyar duy tekki baax na jële sunu mag ña dañoo wegante woon toppante koo ci gis mu doonub taalibe ne nañ tabe ci suñu daraja bokk na ci yoonu murit jikkoy murit tabe ci sa daraja lu am solo la am murit doon nañ ci darajaam nan tabe ci suñu daraja fonk suñu kilifa yi sëñ Saaliw dafa wax dafa waaye gis nga ne ne ne suñ sal des na jóob nan tabe ci suñ daraja ne ragalu de yàlla dafa organisé te wax ne lépp ci addisu ko si ne yàlla programme te programme yàlla du faussé kon nan góorgóorlu te bàyyi yenn di digge yoo xamante ni nekkuñu ca sëñ Cheikh mii dem naa ba këram ma wax ko ko ni ko yow siñ bi teg bu loo ne aj na aj li nga am itam yaa ko jëf wax nañu ni nga topp sëñ bi ni am nañu koy wax ne am na ku ma ni sëñ Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye mi li ma xam sëñ moo taal ñu ci bari xamuñu ko am na ci ñuul nag dañu gàll ko nit ñi lànq leen sëñ Babacar yee nanu yee nanu ku ci demul ci yow la baayam siixul maamam siixul nee liggéey seeraa ko ñor maa ngi maa ngi jéggul nag sëñ Saali mi ngi jéggul jërëjëf daam bisimilah di soo dem mu jox kàddu kilifa bi jërëjëf sëriñ asalaamaaleykum kàddu gi macha allah asalaamaaleykum waaw. jërëjëf. organ yëpp daje nañu waaye ñu sant Lam Fall FM di ko jaarale ci Serigne Baydi Thioune ñu ngi koy def direct ci àdduna bépp Lam Fall FM di jàmbaar lool. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. nañu jottali kàddu yu bàyyi ko Serigne bi. jëm ci bokk yi fi teew sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ baa ngi nuyu bokki taalib yi fi teew yépp te di leen jottali ay cantam ak i ngërëmam di jiital nag nuyoo yooyu ak cant yooyu ci sangam bi di Cheikh Modou Mountakha mu di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram yéene ji mu am ci liggéeyal ko maamam ak sëñ maamam ak wajuram yu baax ya ak magam yu baax ya sama borom kàttanal ko ba mu def si lu kawe njortam noon it la sëriñ bi di nuyoo ak di siyaare mbooleem njabootug sëriñ Tuubaa yi di leen ñaanal ñoom it sama borom kattanal leen ba yéene ji ñu am liggéeyal seen maam ci ginnaaw Cheikh Modou Mountakha ñu mottali ko sëriñ baa ngi nuyu mbooleem ñi fi teew di jiital ci nuyoo bi njabootuk sëriñ Touba gi fi teew sëriñ Moustapha moom sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar moom Cheikh Modou Lamine Baara léegi la fi bàyyi ko ànd ak njabootuk boppam gi ñu ñëwoon ci sëriñ bi ànd ak moom bis bi sëriñ bi ne mi ngi koy siyaare te di ko ñaanal sama borom kattanal ko sëriñ baa ngi nuyu sëriñ xaadim mii toog di bokk ci njabootuk sëriñ Moustahine moom sëriñ Baara sëriñ bi sëriñ baa ngi lay nuyu te di la siyaare sëriñ baa ngi nuyu soxna Maymuna Mbakke moom sëriñ Moustapha Caytu mu ngi nee toog moom it biig la fi ñëwoon sëriñ baa ngi lay nuyu baax soxna si te di la siyaare di la ñaanal sama borom kattanal la te wéral la sëriñ baa ngi nuyu ah, soxna Mambar Mbakke moom sëriñ Fallu moom sëñ Mutulaa sëriñ baa ngi lay nuyu te di la siyaare di siyaare mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom ngeen àndal ci bis bii nga xam ne moom la woote woon fii si Mbakke Kajoor gannaaw loolu sëriñ baa ngi nuyu ak di jottali ay cant ki ngërëm ci mboolem njabootu Cheikh Rafal gii nga xam ne ñoom la jaboote te mu mel ne ñëpp teew nañ tey ci bis bi nga xam ne bis bu am solo la li ma koy waxee rek boo jógee kër maam Saliou Fall ba ci kër maam Gunda Fall sëriñ Cheikh Ngunda doon wax léegi daaneel kàddoom njabootu Cheikh Rafal gépp a ngi fi teew si njiitul sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Modou Moustapha Fall gépp waaye di jëwriñu sëriñ bi mu teg ko si kanamu njaboot gi sëriñ baa ngi jottali ak cant mu jëm si mboolem buntu kër maam Cheikh Fall yi manes na koo lim lépp waaye jataay bi dafa yàgg waaye li ngay dale kër sëñ Moustapha Fall kër sëñ Mor Talla kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar kër sëñ Ali Fall Mbawor kër sëñ Mbakke Fall kër sëñ Abdou Sakkoor kër sëñ Ngunda kër sëriñ Basiiru Fall kër Cherif Assane Fall tuddoon naa kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor mel na ni ñoom ñëpp teew nañu fii ci ndigalul sëriñ ndax sëriñ bi moo sàkk woon ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ñëw fii tey teew fi Mbàkke Kajoor ndax dikk gii mu dikk fii tey ni ko Serigne Cheikh waxee day lu rëy a rëy day lu am solo ndax sëriñ Cheikh ni mu wax ni fii la lépp doore sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne loo xam ne boo ko jàppagul tuddagoo ab murit boo ko bàyyee dootoo tudd ab murit bu ñu la dee wax murit loola rek a tax waaye kenn ku ne xam ne ni yoon wi moom bëgg sëñ tubaab boolewula si sopp ko boolewula si li lay boole si yoon wi mooy jépp lu joxe sa bopp def la Cheikh Rafal defoon si bërëb bii nga xam ne fa lañu bàyyi koo léegi. muy fa mu sukkoon bëti woomam yi jox boppam Serigne Touba ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira waaye teg sa ni loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi sëriñ Touba nangul ko njëbbal la ndax bu ko Serigne Touba nanguwutoon kon li Cheikh Rafal liggéeyal Serigne tubaa kon du ko mën a liggéey te li kon li mu doon sàkk du ko am waaye ba mu jébbalee boppam it Serigne Touba da koo nangul njëbbal la mu daal di jóg nag xam ne li mu wax ak Serigne Touba ay kàddu rek la yu jóge si làmmiñ tàbbi si ab nopp. waaye lay tax kàddu yooyu wér mooy mu di jóg nag teg sa tànkam jëfe ko nag ñu ngi ni Seera Faal diirub kero ba nga xam ne jox na boppam sëñ tubaa la noppee sàkkal boppam dara lu dul léppam jox na ko sëñ tubaa di féete di liggéeyaa ko nu sëñ tubaa lépp lu mënoon a gàllankoor sëriñ tubaa diggam ak boromam wala diggam ak rasulullahi Cheikh Rafal jóg taxaw sa loolee ba sëñ tubaa am ak dal gu mu mën a joxe boppam yàlla ak yonent bi ba am ngërëm li muy sàkku si si boromam kon fii fa la lépp doore liggéey bi nga xam ne nag sëriñ Babacar mi ngi ko fiy taxawu ni ko sëriñ Cheikh waxe ne ko dama laa ñee day liggéey boo xam ne liggéey bu ko mag gën a mag amul ndax fii mooy cosaan fii la lépp doore sëriñ Cheikh wax na ni ndigal lii sëriñ Cheikh jëmm mi ko ko jox yàlla na suñu borom dolli ay leeram ba mu ko koy jox ay rakkam a ngi fi ba mu ko koy jox ay doomam a ngi fi ba mu ko koy jox ay magi taalibee ngi fi yu àndoon ak maamam ak i wajuram waaye moom mii la yàlla sunu boroom dogal mu tànn ko jox ko liggéey boobu yi ne ko demal liggéeyal ma loolu yi sëriñ Assane Fall mii toog daal di seere ni sëriñ bi de tobbi lu ko aw sas da koo jox ndigal rek ne ko demal Mbàkke Kajoor la nga fa war a def nga def ko fa waaye bi sëriñ kër ñëwee si ni ko sëriñ Cheikh Ngunda waxe si pas-pasam akuk dogoom ak gëm gu mu gëm Seera Fall xam ni ab taalibe bu dëggal moom day tàmbali rek waaye ka muy liggéeyal moo koy àggale te mooy sëriñ bi boobee la daal di jël liggéey bii nag aj ko foo xamante ni fii ku fi ñëw danga xam ne liggéey bii fi maam Cheikh Ibrahima Fall sos liggéeyloo ko sëriñ Babacar kenn ku ne xam na ne sëriñ Babacar mii yóbbu ne ko foo xam ne murit bu ne mën na see jàng ndax Cheikh Ibrahima ay mbiram dafa amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am sëriñ si moom la liggéey bii jaaroon ñëw si Serigne Babacar waaye ba Serigne Amdi Fall toogee jataay maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ne lépp lu magam ñu baax ya tàmbali woon ndigal lu magam ñu baax ya joxe woon lépp lu nu waxoon moom da koy da koy da koy yokk waaye du sa wàññi dara képp ku amoon ndigal si Serigne Cheikh Fall jëm na la ko moo Modou Aminta na mu ko bàyyee woon sa ña ko amoon si di Modou Fallu Fall nee na noonee rek la ko bàyyeewaat sa yow ña nga xam ne ñooñu amoon ndigal loolee. loola mooy sababu sëriñ Babacar mii daal di jël liggéey bi nag ñëw yeesalaat ko sëriñ bi yeesalalaat ko si kanamu sëriñ Cheikh mii ak njaboot gi ne ko demal lala sëriñ sëriñ Cheikh Jëmb Fall santoon sa Mbàkke Kajoor demal fa nga tegoon sa tànk na nga fa daal di tegaat te liggéey boobee la si sëriñ bi bëggoon lépp nanga fexe ba mu am loolee mooy sababu sëriñ Cheikh sëriñ sëriñ Babacar mii dellu si fii te musta génn jëm fenn dama ne sëriñ Babacar. doo ko dégg ci ab rajo doo ko gis ci ab tele doo ko dégg fu ñuy kete walla fu ñuy ñaane ndimbal walla fu ñuy sàkkoo ñu jàppale la si li la sëriñ li ko sëriñ bi digal moom day ku ko gis da nga koo fekk Mbàkke Kajoor mbaa nga dajeek moom fa sëriñ ba muy indi addiyam di ko jox sëriñ bi loolu yi nag ni ko sëriñ Cheikh waxee noonu rek la ab teele bi war a ànd ko sëriñam sëriñ Babacar sëriñ bi nee na mi ngi lay sant sëriñ bi nee na mi ngi lay gërëm sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal sëriñ bi nee xolam sedd na si yow xolam sedd na si taxawaay bii nga xam ne taxawal nga ko fii si bërëb bu màgg bii bu tedd bii muy taxawaay boo xam ne seerafaal ñu ku bokk seerafaal rek moom nga fi taxawal si mat si mat sëkk nag nga xam ne kenn du la fekk fii gis yow lenn loo xam ne nii dana ko xeeb wala lu nuy joxoñ lu dul ni doxin wi nga xam ne moom la nu seerafaal bàyyeel doxin woowu rek ngay dox njaboot gii mu la booleel it yoon woowu rek nga leen won ànd ak ñoom si liggéey boobu yi ba tey jii ñii fi ñëw ñëpp nag seen xol sedd na si yow mbooleem njabootu Cheikh Rafal gi fi teew sëriñ Cheikh Ndiaye mii toog di jëwriñu sëriñ bi bi ma duggee léegi si néeg bi mi ngi seere xolam bu sedd ak pas-pas bu muy seere si yow ak dëgg gu muy seere si liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall fii si Mbàkke Kajoor képp ku ñëw fii gis barab bee nga xam ne da xool barabu Cheikh Ibra Fall ba na mu mel na ko sëriñ Modou Falilou Fall liggéeyi woon nga copier ko defar ko mu mel ne fi Cheikh Rafal sukki woon jébbale boppam nga def ko mu mel ñu mu nekk sa biir nga ñëw fii si résidence maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne Serigne Sidi Mokhtar moo la joxoon ndigal ne bërëb bii nañ ko Serigne Cheikh jëmb nanu fi def loo xam ne lu méngoog lu lu lu méngoog Cheikh la wax ni na mel noo xam ne ni bakkan di mel si kanam na bërëb bi mel noo ne boo duggee si kër gi juróom-ñaari bâtiment mi ngi fi yoo xam ne bee féete penku mooy. kër maam Cheikh Rafal bërëb bi nga xam ne mooy bërëbu sëriñ bi nga xam ne di Cheikh Ibra bërëb bii dend ak moom di bërëbu soxna yeneen bërëb yëpp di bërëb yoo xam ne danga nga koo saytu ngir ñi ànd ak sëriñ bi di ay gan ñoom ñëpp bu nu ñëwee kenn ku ne mën a am foo tàbbi déglu fa ndigalu sëriñ bi liggéey bi nga xam ne moom la la sëriñ Cheikh Fall jëmb santoon te nu mandargaal ko fii dafa mel ne dafa mel ne bërëb bee ñu tudd léegi muy bërëbu siyaar fi Cheikh Rafal jébbaloo woon ak daaray Mamor Anta Sali jee nga xam ne fa la Mamor newoon di fa jàngale alxuraan te nga am pas-pasub yeesal ko ba mu mel na mu war a mel daara jii nga xam ne sëriñ bi dugg na fa léegi muy tawféex daaray tawféex moom it di daara joo xam ne dañ koo saytu ngir di fa di fa di fa di fa di fa di fa yar ak di fa sàmm lépp loo xam ne day tax ba bu sëriñ bi joxee ndigal nga mën a jóg mën a jékku ndigal la yaag taalibe yi nga àndal tool yii nga xam ne yaa ngi koy saytu di ko bay meññeef yu bari wala boog variété yu bari nga di ko fi def loola lépp ngir mën a jekku ndigalu sëriñ bi ak kër maam Cheikh Ibrahima gii ñu nekk tey loola moo doon digal li nga xam ne moom nga sàkk woon jaayante ko si sëriñ Cheikh Fall jëmb waaye nag ba nga ko tàmbalee dafa wax ni danga nga see yokkul yeneen yoo xam ne loola sa pas-pasu bopp rek moo la dimbali ba nga yokk ko te loola dañ ko seereel sëriñ bi seereel ko njabootuk sëriñ bi ba ñëpp xam ko bokk na ci ay tool yi dër yoo xam ne yaa ngi koy saytu ñu fay bay mbayum dër tey jii fanweeri nit ña nga fa di fa liggéey di fa jàng ni ñuy bayee tooli dër te kenn ku fa jóge fenn foo mën a dem da nga yóbbaale xam-xam bu la doy sëkk ngir nga mën a tàmbali sa liggéey bopp mbaa nga jottali xam-xam boobee bokk na si benn unité de transformation alimentaire muy bërëb boo xamante ni bii dañu fay soppi li nga xam ne meññeef la ñu koy bay te di ko dundee te nga xam ne suñu ko dencee mu yàqu ñu di ko saytu di ko defar ba nga xam ne bii dina mel noo xam ne danañ ko mën a denc lu yàgg ku ko bëgg a jariñoo di ko mën a jariñoo te te du yàqu loola nga siy tàggat jigéen ñi ak góor ñi ñu nekk di si liggéey lu mat fanweeri nit ak ñett ñanga sa ñu leen ñu leen say tàggat ñu di ko def muy am ay jeexital yoo xam ne kenn ku ne danga si yaa ngi siy teg sa bët am na loo xam ne atelier la boo xam ne fu nuy jàng ñaw la ak ak cuub nga xam ne soxna yi ñi ngi fa di jàng ñaw ak cuub lu mat ñee lu mat fanweeri nit ak juróom-ñett ña nga fa ñu li leen tàggat si wàllu ñaw ak wàllu cuub nga xam ne ku fa jóge da nga mën a da nga mën a penk mbooleem xam-xam boo xam ne bii da nga ko mën a jariñoo si fànn boobu yi bokk na sa euh, euh, liggéey atelier yi nga xam ne ñi ngi fay jàngale euh, vannerie ak ak crochet vannerie xaw ma nu ñu koy waxee si wolof ak crochet mooy ràbb xeeti ràbb xeeti tissu yi ak ak ak kii yi ak euh, yenn yenn kii pañe yi loola ñeen fukki nit ak benn ña nga fa di ko saytu bokk na si beneen boo xamante ni biit ña ngi fay defar ay jàngale xam-xamu defar ay saabu ak it loo euh, ay saabu ak i ordre yo woo xam ne tey ji loola ma nga sa tuubaa Roof ñu ngi ko romb léegi si yoon wi lu mat juróom-ñett fukki nit si mu mel ni ay jigéen ay soxna ña nga fa di ko saytu bokk na si feesa Daaru Marnaan lu mat euh, téeméeri nit ak fukk ñoom it ñu ngi leen di tàggat ci reciclage plastique maanaam plastique bii di butéel yeeg dàll yeeg plastique yi ñu di ko for di ko dajale di ko defaraat ba mën koo jariñoowaat ci yeneen anam loolam mi ngi koy saytu bokk na ci it fa la ñuy wax tuubaa Touba ci la moom it tool buur am na fa moom it téeméeri nit ak ñaar fukk yoo xam ne ñoom it ñu ngi leen di tàggat ci xeeti xam-xam yu mel noonu nga xam ne boo ko seetee mel na ni ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñaar si ay murit si ay taalibe wala si ay dongo ñi ngi leen di moom sëñ Babacar mii ak soxnaam sii mu àndal ak njabootam gii ñi ngi leen tàggat si xeeti xam-xam yoo xamante ni képp ku ko peek boo génnee da nga mën a yor sa fi bopp yoo xam ne da nga ko mën a saytul sa bopp te loola sëriñ bi rek la koy defal ndax sëriñ bi moom moo war moo warloo taalibe yi teg leen si yoon wu nuy jariñoo àddina ak kenn ku ne ba nga joxe sa bopp da nga ne jébbal naa la sama bopp addina jëmal naa sama bopp àllaaxira ñi ngi si àddina nag demagun àllaaxira sëriñ Babacar nag taxaw ci lépp luy ñoŋal dunduk taalibe yi ngir nu mën a sàmm seenu taalibe ba mën a peeg loo xam ne ëllëg si biir mu sa àjjana ja danañ ko mën a jariñoo kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yeesal euh, euh, ak ñaanam si yow te xam ni nag nee na mi ngi si sa wet mi ngi sa kanam mi ngi sa ginnaaw nee na nga dox rek te dem li nga bëgg lépp nag Cheikh Rafal am na ko te Cheikh Rafal si yow li nga bëgg lépp danga nga ko jot lii nekk si kanamu sëriñ bi lii ay ay màndargala yoo xam ne day tekki li fi jigéen ñi di saytu sëriñ bi bagage yi nekk si kanamu sëriñ bi lii lépp nag ñi ànd ak njabootu sëriñ Babacar ñoo koy liggéey fii muy ay pañe yoo xam ne dañ koy ràbb muy ay yére yu ñuy ràbb muy ay darab muy ay garab la mu ay karab yu ñuy defar dégg nga ay cuub lii lépp di loo xam ne tey xam-xam bu yéeme la boo xam ne nit dina jóge réew ak réew di ko sakku ji tey jii loola jàppandi fii fi mbakki Kajoor si sa ëttub maam bii sab taalibe yor ko di ko saytu di ko defar kon nag sëriñ bi liggéey baa ngi nii sëriñ Babacar nee nga ñaanal ko ba lii ñu tàmbali ñëpp man see jaruñu lii ak njoowaat la lii lépp lu mu defar la nga xam ne soxna yi ànd ak ñoom ñoo ko defar ñu bëgg nag sëriñ bi xam ko sëñ si àngu na mën nga indi mu xool ko waaw dañu fiy defar ay xeeti cere jël dugub jël dugub di ko defar ba mu doon ba mu ba mu doon cere joo xam ne jii des na ko mën a denc lu yàgg te du yàqu ñu jël mboq di ko ko def di defar ñebbe mooy lépp lu ñu lu ñuy lekk waaw lépp lu ñuy lekk ak lu ñuy naan sëriñ bi di si tàggat sëñ baabakat di si tàggat taalibe yi ngir nu mën koo saytu ba loolu liggéey la boo xamante ni bii Cheikh Rafaal rek la si roy sëriñ Babacar liggéey bi nga xam ne lii sëriñ bi ay ay ay céréales la sëñ sëñ sëñ maanaam li dale si kafe ak ak dugub dañuy defar ay sanqal di defar ay cere te lii lépp dañ koy jàngal jigéen ñi fii ñu di ko defar nga xam ne lii képp ku ko man foo dem mën ngaa yore sa entreprise su bopp boo xamante ne bii da nga jël ay nit sax da leen liggéeyloo ñu di la fay te waxtu wu ko sëriñ bi soxlaa dina ko mën a yittewoo te bu boobaa ñoom loola dina jàppandi jëlal waaw baax na baax na sëñ Fall li baax na waaw waaw lii lépp nag addiya la ju ñu jox sëriñ bi si addiya ji la bokk man ngeen koo def si kii bi waaw li siy dolliku li si dolliku sëriñ bi di seere ni sëriñ Cheikh Ngounda mii sëriñ Saliou Fat Sow dafa doon seere léegi keroog bañ ñëwee Serigne seex Fall jëmm ba mu ñëwee fii yëkkati ñaari million jox ko Serigne Babacar Serigne Cheikh ngun na ne ma naa fésal ni ñaari million yooyee Serigne Cheikh Fall jëmm jëloon jox ko sëñ Babacar ñaari million yooyee sëñ Babacar jëlaat na ko tey jii jox teg ko si loxol Serigne Amdi Fall mi mu sëñ Modou Mbenn jox na ko ko si néeg bi si kanamu Serigne Cheikh Fall ngun kon liggéey boobu loolu Serigne bi seere ni sëriñ si sëriñ Babacar soxlawul lenn lu bàyyikoo ko si sëriñ bi moom li mu sasoo mooy ñàkk jox sëriñ bi waaye sasowul sëriñ bi yëkkati di ko jox liggéeyaa ko sëriñ bi rek la fas yéenee doon kon nag giléem yi teg na si ñaari giléem yoo xam ne jox na ko sëriñ bi addiya sëriñ baa ngi sant ñëpp sëriñ baa ngi gërëm ñëpp sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp waaw li si dolli ko sëriñ baa ngi jottali ay cant yoo xam ne mi ngi jëm ci Serigne Cheikh Fall ndigal moom Serigne Cheikh Fall Baye góor ndax sëñ bi dafa wax ne Serigne Cheikh ndigal de jàpp na ko jàppale na ko nee na doom la nee na xarit la nee na ab taalibe la nee na ku mu gërëm la nee na ku ko ku ko ku ko safoo la moom Serigne Cheikh ndigal fu mu masa ne rek Serigne Cheikh Fall ndigal fekk na ko fa si aw fekk na ko faak yéeneem fekk na ko faak jëfam fekk na ko faak ab liggéeyam yónnee na fii ay ndaw yoo xam ne daa togg ay añ indi ko boole ko addee ju mag yónnee ko sëriñ bi jox ko ko ci bis bi nga xam ne jàpp na ne moom moo waroon na taxaw bés boobu yi kon sëriñ bi nee na mi ngi jottali cant yooyu ak ngërëm yooyu mu jëm si euh, sëriñ Cheikh Ndigal Fall sëriñ beet mi ngi jottali ay cant mu jëm si njabootu boppam gii nga xam ne bu nu tuddee bu nu tuddee rakki sëriñ bi ay doomam a ngi nii teew sëriñ Fallum Fall moom sëriñ moo deminte Fall mi ngi nii teew di jëwriñi mboolem ku dib sëtaat wala ku dib sët ci maam Cheikh Ibrahima Fall di jëwriñi sëriñ seex Ndiaye Mbeng mii di jëwriñi sëriñ am Amdi Fall Modou Mbend am taxawaay boo xamante ni bii lu nit gàtt-gàtt ab dégg xam nga taxawaayam sëriñ Fallu moom sëriñ moo deminte Fall sëriñ bi jottali ay cant ki gërëm mu jëm si sëriñ Fallou te di ko ñaanal moo rakkam yëpp nag si buntu kër Cheikh Rafal yi mu bokk yépp moo mag si sëti Cheikh Rafal yi sëriñ baa ngi teg cant gi ak ngërëm gi si loxoom ñun ñëpp nag gis ci seen bopp xam ne sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp jataay bii nag sëriñ baa ngi ñaan bu déwénee ni ko Cheikh Moustapha waxe waaw. waaw Serigne Cheikh mun na dafa wax ni mi ngi sant Serigne Cheikh ndigal cantuk boppam. ndax kilifaam yépp la jox cër mhm. nee na baayam yépp la jox cër taalibeem magam rakkam ñépp la jox cër neena da koy wax ni ko man jox-jox bi ñuy wax da koy def jàpp ma la ngir jox-jox sa jikko laa la jàpp xaaral sëñ bay wax kon loolee nee mi ngi koy seeral sëriñ bi waaw jërëjëf Fall sëñ Babacar li mu la wax nee na am na fi barab lu mat juróomi at mi ngi fii defaru ko diw fa dara ngir liggéeyal Cheikh Rafal nee na barab bi biñ ko ko joxee biñ ko ko joxee ki ko ko jox Cheikh Ibra tax kon doo nekk ci liggéeyam Cheikh Rafal ma di fi jaarale leneen jërëjëf Fall sëriñ baa ngi sant ñëpp. waaw sëriñ bi daa wax ni bu sëriñ bi jógee nag nun ñëpp nu may sëriñ bi ba mu dugg si oto bi su ko defee nun ñëpp ñu mën a kii nag murit yëpp xam ne nag fu waay nekk na nga tàllal sëriñ baa ngi ñaan xam ne mbégte ak cantuk sëriñ bi ñëpp tabbi nañ si biir yàlla na nu fi dajawaat nag ni déwén kenn bañ a des barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dëkk leen. dëkk leen seen loxo teew amiin. ñu ngi sant organe de presse yëpp. waaye rawatina Lamp Fall FM amiin ko jaar la ci Serigne Bayri Thioune. amiin raayo leen te wax amiin.